asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi maa ngi leen di seer bu baax di leen nuyu di am kontante ak mbégte loolu ci jàkkaarloo yéen chaîne bi nga xamee ni moom mooy mik point net waaye tamit émission bi nga xamee ni moom mooy ëttu Tooxiduuna ëtt bi nekk saa lu ko déggee xam leen xew-xew am na xew-xew boo xamee ni ci àdduna rek lay mën a xewee xew-xew boobu nag li nga xam ni moom moo ko indi moom mooy góor waxambaane boo xamee ni. ma nga bàyyi ko ca kaw ga daal di ñëw Dakar ngir wut lu mu fi am ngir daan dooleem ba mu ñëwee Dakar nekk di liggéey ngir daan yàlla ubbil ko buntu wërsëgam damay faral di wax ni nit saa bu jógee fenn dem fenn di wuti yàlla may ko fa taranga bu mu yaakaar ni njàmmaaram la ndax fa mu jóge la ndax bu yaay ak baay amul woon ay mbokk amul woon doo màgg bay am dara ndax ku juddu rekk bu la mbooloo teew mbooloo boobu nekk teew ay mbokk lanu mbooloo boobu ñëwuñ noonu rekk ndax tàntaanga ca bàjj na nga ca mbokk bëbër nga ca loolu li muy firndeel mooy boo amee alal mbaa boo màggee am njariñ na ngay gestu say mbokk yàgg naa di wax nit gën te amul lu gën a foor ay mbokkam ginnaaw nag famem mbokkoom ginnaaw mbokkoom xeetam ginaaw xeetam askanam waaye nag gàttaxel mënta weesu yàlla may la wërsëg gu bari nga juddoo ci benn xeet wala ci benn askan wala ci benn mbokk walla fami nga ne yow cundum rekk yaay barkeeloo boobu alal wax dëgg yàlla ne asgor du ko def ndax kii nag yàlla may na ko taraang mu tabax kër gu rafet fii ci ndakaaru ba kër ga jekk wax nañ sax ni du benn kër am na ñeenti ba juróom waaye li ci garaaw mooy avant muy am alal jotoon na am soxna ba am ak moom ñeenti doom waaw comme kay am nga alal yàlla may na la teraanga nga am ñeenti kër ci diggum ndakaaru mais say doom ku leen romb yërëm leen waxuma ku leen romb yéene leen sarax mbaa say mbokk alal ja ngay tabax ay état di dem jënd ay oto di dem di investir ci ay société di dem te ku dugg sa kër daanaka la ñuy lekk sax boo ko joxoon sax ka gën a néew sax du ko lekk ku gis sa yaay bëgg koo yërëm ku gis say mbokk bëgg koo yërëm ku gis doom yi nga jur bëgg leen a yërëm sàkkamtuma laa sa jabar bi nga xameen sax bu dem xew sax day làqatu moom jël xaalisam jënd ci yére sol ko ndax sa bëggee ak sa tiitaange ak ñàkk alal boo xam ne ñàkk nga ko wóolu ba doo dimbal say mbokk xibaar bi nit jegewul ci man de ci caatam la jóge ki nga xam ne moom waa ji moo ko jur ci boppam muy caatam nga xam dafa abandonné baayam dem ci benn kër tàntam maanaam kër mbokkam boo xam sax du tàntam jege na ko loolu waaye fa la dem pour àggali njàngam mu ne ma diw ma nag mu ne ma neuf ans nii sama papa tëgguma ko bët am na alal ay millions la yor mais alalam doo ko gis sama yaay du ko gis ay mbokk duñ ko gis ñun ñi ay doom sax duñu ko gis kenn xamul alalam bi lal la alal bi alalu jënd la wala rab la wala ndax koo xam ne jënd benn karo wala jënd benn pneu oto moo gënal jox ay njabootam mais alal jooju lan lay njariñ ba pare lii gën a garaaw mu nekk koo xam ne tu alal la jóge kaw ga village ba nga dëkk sax doo leen dimbali ndax amna ko xamne xam ñaar ñoo bokkon jamono ji muy metti ci nga xamne amul dara ñoom ñaar ñoo bokkon nekkon soudeur krok bima dom di joxe ni wala waji ma wo waji ne ko lima di wax amna na mu ne ma saway koku luma la wax bayina dara man ak mom ñu dan and ñoo dan ligi at soudeur bama ko gis xawma kañ la bo ma boo gis ay yaami bi ko jundum koy bëgg sarax ndax ken xamul lu mu niru ji ay millions la mu nekk nit camp boo xamee ni dafa doy waar lool bari senegal trop ci ay waxambaane yoo xam ne ay sàmm alal la ñu nekk am alal ju bari mais alal di du feeñ seen i mbokk léegi yow foo seen mbokk rek naan kii mooy rakku diw ay milliards la yor ak kii mooy doomu diw te yàlla xam na ni yow ma koy wax sax yaa tane sax ki nga xamee ni moom moo moom la jur wala moom la mbokkal wala yaayam xale bu jigéen boobu nekk moom moo fi indi jile kaar ne ma sam dafa bari alal mais alalam du ci dimbali ay mbokkam du ci dimbali kenn kenn la ci dul dimbali ñun ñi ay doom sax duñ dimbali waxtuma laa keneen te loolu bari lool ci réew mi yaakaar naa ne euh, temps bi moom dul may ñu àggale ko waaye ci vol 2 bi danañ ko àggale bu neexee yàlla maa ngi ciy ñëwaat euh, léegi léegi.